Bonsoir, ses amis, bonsoir, chers téléspectateurs de la VA TV. Je suis très très très ravi de vous retrouver mais rawatina les téléspectateurs yi rawatina item itam ñi nga xamante ni ñu suivre ci internet bi am mbégte ak contentement bu baaxa baaxa baax dal di jano ak yéen fi. ba taxna itam euh, ngi len di beral li nga xamante mom modi nuyo nek nuyoo len euh, heure bu baax bi jotna na fi nga xamante mom modi di ci VA TV ak émission bu mag bi nga xamante mom modi di VA show ngeen ànd sék man l'enfant chéri de sa maman waye itam nee la rek non rek la dal di def di xoss di ziar euh, ñi nga xamante bi ñoom ñooy samay wayjur di sàkku ci ñoom ñaan gu bari waaye itam di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal seen taxawaay ci réew mi di ñaanal itam eh, képp koo xamante rek eh, dangaa nekk ci hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg bopp yi te dala leen ci njaboot gi ci barki nabil musafa waaye itam képp koo xamante caabi dala féetee ginnaaw yàlla na la yàlla génnee fa nga nekk ci barki nabil musafa ay ca ba tax na comme ni ma leen ko waxee woon eh, nu ma leen koy waxee à chaque fois heure bu baax bi jot na fi nga xamante ni moom moo di ca VA nga xamante ni moom moo di VHO euh, allah rek bu mu leen xoolee damay daal di kontaan ba tax na nag tey thème bi nekk li nga xamante ni moom moo di a tàkku moom itam moom mooy découvrir rubrique bi nga xamante ni nee naa la moom moo di nouvelle génération en même temps waaye itam ak ki nga xamante ni moom moo di kanji soocéan ah, macha allah moom itam moom mooy découvrir li nga xamante ni moom moo di showbiz bi ba tax na itam laataa may daal di xuus ci loolu dama leen daal di ziar rek bàyyi leen ñu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di téléspectateurs yi ayca yéen ñaar ñi ci kan laay jiitu. kon laal rek rafet ngeen de <laughs> yow xoolal fu la neex rek xoolal buntu wu la nga daal di ubbi. mais yéen jonga ma ngeen de yéen ñaar ñi. ah, ah si kan laay dem. gis nañ la nga def sa été def nii. <laughs> waaw gis nañ <laughs> kontaan naa ci yow junni bi dina ñëw incha comme ni ma koy waxee rek saa su ne. di la nuyu bu baax a baax jaxatika ba yéeri ah maa nuyu di la jaajëfal waaye di nuyu Kandji Socé sama xarit bi di la nuyu bu baax a baax di nuyu internet yi nga xamante rek ñoo ñuy suivre nee naa rek saa su ne euh, doole jën dox la waaye itam suñu ay doolee ñun animateur ak animatrice euh, téléspectateurs yi la ba tax na rek amuñu seen fay di leen jaajëfal di leen wax rek euh, heure bu baax bi jotati na donc xaar leen émission bi lee muy VA show ndax rek incha allah dañ fi wax lépp li nga xamante ne rek macha allah njariñ lay doon. Aïcha comme ni mu ko waxee moom tàkkoog Malado ak Fatimata nee naa la heure bu baax bi jot na fi nga xamante ni moom moo di VA TV ci nga xamante ni moom moo di VA show de sa lii laa wax dañuy daal di dàq naqar mhm. dëkkal bànneex comme ni ko tonton professeur di waxee suñu pusa la ñuy yor <laughs> di duut rek <laughs> ay ci ma bàyyi la euh, Kandji Socé nga daal di nuyoo ak téléspectateurs yi ah. na foofu rek laay jaar daal di nuyu ñi nga xamante ne ñooy téléspectateur VA yi mm-hmm. euh, di nuyu bépp sénégale boo xam ne yaa ngi jàkkarlook sa plateforme dañuy seetaan euh, di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine ak aada yi. di nuyu ñi nga xamante ne ni aussi ñoo tëdd ci lal hôpitaux yi ak ñi nga xamante ñoom la caabi féete ginnaaw ñi nga tëdd ci lalu hôpitaux yi nag ñu leen di ñaanal yàlla delloo leen seeni njaboot mm-hmm. ñi nga xamante ne ni tamit caabi di leen féete ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom ubbil bunt yi ba bañ fa delluwaat di ñaan nuyu ki nga xamante ne aussi mooy sama yaay booy maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu wàpp ti mbaaw yi ma bàyyeekoo yéen ay ayca tubaarfakala ba tax na man itam rek lay daal di xuus di ñaanal itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi newoon te newatuñ fi yàlla na yàlla woyofal suuf ci seen kaw te yeesal yërmandeem ci barki nabil Mustafa waaye itam di ñaanal sama jur bu góor yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ci barki nabil Mustafa ak képp ku fa nekk comme ni ma koy waxee saa su ne képp ki itam koo xamante ni danga amee naqar mbaatis yàlla na la ko yàlla teggil ayca heure bu baax bi jot na comme ni ma koy waxee tey nag. tey la tey <laughs> gis nga de heure bu baax bi. tey la tey ak bu jotee ñëppay xaar bu ah, jotee ñëppay xaar bu jotee heure bi ñëppay xaar l'enfant chéri de sa maman ba mu commencé ba léegi kenn seetaan dara moom rek la ñuy topp. ku tëddoon daal dañuy toog waaye ku taxawoon tam di nga toog. maa la wax nii nelaw di nga yeew nag bu baax ngay jot jot naa kay <laughs> ayca <laughs> thème bi nekk euh, nouvelle génération euh, tey nag euh, tàkko ñu war a waxtaan ci li nga xamante ni moom moo di nouvelle génération nouvelle génération bi léegi gis nañu ah dundun bi xaw na xaw na wute mm-hmm. par rapport ak au début suñu maam yi nuñ daana Euh, doxalee. Mhm. tay euh, buma ne tay tem bi mom moy nouvelle génération. Mhm. donc tay ana lan ngay wax. voilà Demba di la remercier bu baax a baax ci question bi euh jamono legui nak comme ni ni nga ko waxee rek nouvelle génération bi legui dafa euh, don li nga xamantene euh dafa vaste c'est-à-dire euh, comme ñun suñu jamono yi xale yi comme ni ñuy dundé mhm. euh, naa wax par exemple ci li nga xamantene rek euh, mom la indi tay comme thème. Eh, muy eh, eh, période tabaski bi nga xamante ñu si waaj a dugg parfois xale jigéen ñi dañuy def li nga xamante rek moom mooy dem di mbaraan góor ñi xam nga mu doon phénomène bi nga xamante ne am na ñi nga xamante ne rafetluwuñu ko waaye itam am ñi nga xamante ne rafetlu nañ ko ku nekk rek ak sa gis-gis mm-hmm. donc mi ngi noonu nag après rek kanam allah dañ ci Euh, ñu gën koy yaatal incha allah. ayca tubaarfakala tàkkoog Malado ak Fatimata na beneen 5000 mm-hmm. ñëw. <laughs> day ñëw. <laughs> ayca ah, muy 10 <laughs> kon neex na ba noppi kon. Kandji Socé tey tam bi nekk euh, nouvelle génération tey mm-hmm. nouvelle génération bi léegi euh, mu mel ni dañ lu bari ci góor ñi lañ ko lañ ko wékk. Mm-hmm. soit ñi nga xamante ni sax amaguñu jëkkër seeni i far donc tey ana lan ngay wax yow en tant que une grande dame. waaw tey li may wax rek mooy euh, nouvelle génération bi léegi euh, doy na waar doy na waar boo xamante ne nii kenn mënu leen canaliser par rapport ak ñi ñi ñi ñu mag ñi daan doxee ñoom doxeetuñ noonu man nag dama xamul ndax ci éducation bi la euh, xawma toppandoo bi la xawma ma daal mais daal kenn mënatu leen canaliser le fait que comme ni ko sama naataango bi waxee tàkk ko tabaski période tabaski buy jaaj jut si ku ci nekk dafa am nooy jaar mm-hmm. te bu àddina doon baax suñuy jamono ñun mm. da ngay toog xaar papa yaay lum la indil nga xam ne loolu la ay rob lañ daan sol ay turfet mais nouvelle génération bi ma gis léegi mara day taale gis bëgg nga mm. bëgg nga dàll bu rafet bëgg nga jeesner bëgg nga yu xew léegi xeetu xeetu yu xew léegi mm. te xëyoo gontoo nga jël yëpp bu ko wekk ci góor après conséquence la lay indil kon nag dama bëgg génération bi ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xamante ne ni mooy approche yi nga xamante mooy feet yi day ñëw ñu bàyyi xel xool seen doxalin di bàyyi xel di xol ni mag ñi daan du ñu di mm-hmm. tabaski ben fan la et tu as toute ta vie en tant que jeune donc dafa dafa am solo nga ci bàyyi xel. Mhm. boo benn fan bu taxee nga yàq sa àddina mhm. dara dootul ko mën a defaraat. ma leen di ñaan rek ñu dellusiwaat seen xel bu baax te xam ne tabaski benn fan rek la. Mhm. te mën nañ koo paase. ayca euh, Kandji Socé tey bu ñu doon wax ci li nga xamante ni moom moo di suñu suñu suñu euh, seen jamono yéen laay wax donc tey ana nan nan nan ngeen daan paase seen i moment yooyu noonu seen yéen ak i copains avant euh, nga baal ma <laughs> ci kàddu bi voilà avant avant ngeen di marié. waaw dëgg la parce que ñun nag dañu ragaloon ba ñun mën naa ne feet bu jotaan mhm. euh, dañuy dem def comme ñaani ndéwénal mhm. suñ paree bu ñu ñëwee toog ak copains yi mhm. teg lee lu ñu jotoon a am ci ndéwénal ñu jël ko jënd ay farine defar bonbon toog waxtaan ensemble toog suñu weti yaay ñu ñuy léebal boobu ay appartement amul woon boobu appartement amoon non appartement amul. appartement amul wala ay cuisine amul non yo yo yooyu yëpp amul. da ngay tok en famille eh, toog sa yaay ay say frère ah yéen ñëpp ngeen tok ngeen bokk li ngeen xamante ne mooy jotaa bi ataaya bi fii lee bi fii bonbon yi fii ngeen toog waxtaan su ko yaay bi di la wax ne la lii ak lii di indi ay histoire su ko defee yow miy xale bu bi da ngay bàyyi xel. Mm. soo naroon a def naka su lu noonu sax da ngay ragal Dokonya ko ñemee def mais ak léegi monde bi génération bi appartement yi. yaa ngi xalaat euh, fu may dem euh, defe jee ba mu baax non c'est c'est c'est incroyable. ayca <laughs> mu nekk ki nga xamante ni moom moo di Kandji Socé ayca ma daal di jublu ci tàggoog malade ak Fatoumata. Euh, tey thème bi mhm. nekk nouvelle génération. Mhm. tey bu ñu nee nouvelle génération yaa ngi dégg. enseigne li mu teg ci table bi. Demba xam nga loo gis rek chaque chose rek à son à son temps. temps mhm. ndax te jamono bi ñu toll nii maanaam.

xam nga euh, ngeen féexal seen xol daal comme ni kon ni ko euh, li nga xamante ne moom mooy événement bi laajee quand xam nga man daal lool gisuma si loo xamante ne rek danger la. voilà man je vois que ne am na danger parce que d'accord mm. mm-hmm. ñu baax ñi. Mm-hmm. ñu bon ñi ñoo leen yàq. Mm-hmm. ñu ne benn saako benn pomme ci biir saako. bu nëb yàq na ci des yëpp. mais tey. mun ngeen dem féexalee seen xol feneen. fu ci ay tëju ay appartement. imagine toi yéen ngeen nekk ci appartement boo xamante ne nii tout est dans. ay ñu koy waxatee ay suus ak genre affaire yooyu noonu ah ngeen jël yooyu noonu yàlla pour du leen am na seytaan dafay nekk. attends seytaan dafay mais mais mais nekk ci appartement rek ça ne veut pas dire que non nekk ci appartement rek san ne veut pas dire da ngeen di def loo xamante ne neexul yàlla nit mën nga nekk ci appartement. au fait ngeen toog waxtaan. xam nga euh, wax li nga xamante ne moom la mais mais nekkul ne boo demee appart boo loué appartement rek ànd ak ay sa ay copine wala sa ay copain rek kër da def lu bon. non non à pour cent pas d'accord boo génnee 99 kañ ma ñëw nit ku nekk loolu la def non non gis nga vraiment loolu la ñuy def. d'accord tey est-ce que mën nga ñu wax lu tax nga ni euh, jamono ji moo laaj ay apartement ak yenn yi. parce que nit ku nekk. Mm-hmm. buñ la yaree si yar bu teg la si yoon bu baax xam nga mm-hmm. buñ la tegul si yoon bu baax xam nga. Mm-hmm. nit ki nga xamante ne dañ koo yar xale bi ñu yar fu ñu ko war a yaree. même bu tëju woon sax par exemple ak góor ci néeg ah. du du ñemee def yenn yi. parce que laa su boobaa dina réfléchir xool bu baax a baax li nga xamante ne moom lañ ko daa wax démb ak barki démb. voilà alors yow daal foofu nga teg ni euh, jamono ji moo laaj. ay appartement yu laaj yenn yi. voilà damaa jommi tey <laughs> <laughs> man dama sax jommi. nit ki ñu yar nga xam fi en tout cas. nit ki nga xam fi ngay teg sa tànk ça ne pas c'est-à-dire euh, su fekkee da nga dem ci ay appartement ça ne veut pas dire que da ngay dem foofu pour def lu def lu bon mais loolu man c'est-à-dire loolu daal je ne trouve pas que ne lu bon la daal. est-ce que itam tàkku. Mm-hmm. yaakaaroon ni comme Sénégal la ñu wax pays de la teranga la ñu wax. Mm-hmm. ak itam dëkk yoo xamante ni nit yu baax ñee ngi fi ah, ku ci mel ni sëñ Touba ku ci mel ni itam euh, maam Limamou Laye ak mm-hmm. Cheikh na Cheikh Saad Bou ah, ak yenn naa ne yoo xamante ni macha allah kilifa diine yi donc est-ce que tey ca euh, loolu comme amul woon au bi ah est-ce que itam tax euh, warul tax nit ñi gën a mën a sàmm loolu. ndax dama defee ni. Mhm. bokk na ci ñuy liy doxal réew ndax euh, bu njëkk. Mhm. amaana ni réew mi ni ko kànj waxee léegi moment yooyu neexoon na. wala yomb lépp a neex <laughs> yomb ba dee amul estres amul greffage amul amul dem jël ay ay cheveux non mm-hmm. je te dis mm-hmm. amul dem jël ay cheveux amul dugg fii dugg ci loo xamante ni da ngay indi sa bopp say paana problème xam nga léegi nag jamono bi toll da ngay dem ñu defal la ay ay genre ñaari pompon yooyu taqal la ko mm-hmm. ça te suffit waaw mais génération bi léegi moom man comprendre tuma leen ah mais ku nekk ak sa génération la mu méngool loolu ngay loolu ngay bañ a déborder am yéen si ay affaire ngeen bañ a déborder ay pompon ay mais ñun nag dañ tombé ak éducation bi nga xamante ne macha allah non non ne dis pas ça yow nga mhm. dama jàpp ne boo xasee ba am éducation am ay valeurs yoo mhm. xamante ne dañ ko def ci yow. Mhm. doo di nga jomba dugg ci yenn mais est-ce que est-ce que da ngay dañ lay dañ lay nga toog sa kër rek yow tam nga nga toog toog toog croiser de non boobaa xam dara parfois dafay laaj parfois sa yaram si boppam mooy laaj nga génn dem doxal mais booy génn nga ànd ak ñoo xamante ne nii mat nañ àndandoo bien sûr mais appartement de non non, c'est évident je ne suis pas d'accord avec toi non d'accord gars yi non yéen seen génération il faut ngeen <laughs> changer ah. il faut ngeen changer seen yaram yi dafa tàng ba tax na téléspectateurs yi ah, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax nee naa leen nag yéen am ngeen wàll ci li nga xamante ni moom moo di émission bi nee naa leen mën ngeen daal di rek participer en attendant ci commentaire yi ba incha allah euh, lundi incha allah wala samedi samedi incha allah ñu daal di ibbi li nga xamante ni moom moo di antenne bi ngeen daal di participer yéen itam alors euh, Kandji euh, tey bu ñu ne yow ba nga ne tey yenn yi yi nga xamante ni moom la nouvelle génération bi di def léegi moom moo leen di yóbbee ci ci ci ci ci ci ci ci yenn tooxi doona yu bëri ndax da ngeen ni amaana yéen seen seen seen jamono yooyu amul ndax boo leen daan def tuuti rek lu ngeen def da leen di doy mais est-ce que tey xale yu euh, jamono jooju ak xale yu tey benn la génération boobu ak génération tey mun naa ne jamono boobu ak bii du benn. Mhm. parce que jamono boobu ñun ay mag ñoo ñu yar. Mhm. te en général dañ koy faral di wax. buñ mhm. ko boo ko déggu di da dégg mag ñu koy wax ne ku xale yar. amaana expérience bu war a nekk ci yow doo du du mot. Mhm. donc bu la mag yaree nag. Mhm. saa su nekk. Mhm. yaa ngi wéetoog moom. bu yaay di togg yaa ngi nekk ci wetam. boo jàngi jee ba ñëw yaa ngi nekk ci wetam. yaa ngi raxas dugg nga ci lu am solo ndax comme nouvelle génération la ñu wax ndax te xale yi tey boo xoolee bëgg nañ chauffeur. tàkku gaarawaale wu ma la bëgg nañ chauffeur. bëgg nañ chauffeur bëgg nañ bëgg nañ xeef bëgg nañ iPhone bëgg te mënuñoo togg. mënuñoo togg ma ñam mënuñoo togg génération bi am xel. yaay bi bu ko waxee ne kaay fii sama wet ma ni pour ëllëg soo demee sëyi. Mhm. mu ne non yaay léegi Google mu fi loo ko laaj mu jox la ko. imagine toi mais est-ce que est-ce que loolu borom kër dina ko dina ko naw ak ah, ah, nga wara jang ko ko di toggal sa borom kër ma mbaax di demande ay google xam nga euh, euh, nouvelle technologie bi legui dafa machallah arrêté la nouvelle technologie bi non non non avancement bu rëy rëy loolu mo waral nag instant bi dara dara mënu la ngeen di tek parce que non non non parce que suñu jamono lañ toll da ngeen di jang di togg di togg sa ngeen xol ma sa ngeen xol téléphone wala ngeen wax yaay ma ngi russi de lan la wara def attends nit mënul ma la wala ma def tamate non non attendez non attends yeen mom yeen mom mom yeureum na la <laughs> génération bi légui ñun raw nañ leen. raw nañ leen eh, rasoo leen ñoo raw. ñun dañoo am chance ñun dañoo am chance ñun nak ñoo leen ëpp chance. parce que ñun am ñoon benn risque. Hmm. ñun fuñu ñu génnaan da ngay dem ci koñ bi dem ci koñ bi dem ci koñ bi ñëw toogaat. waaw mais yéen non da ngeen vous êtes allé trop loin. non même pas. affaire non loolu dafa xew yi. Euh, nañ ci Kandi Socé ma daldi ma daldi di xoos tuuti ci si tàkk d'accord lu tax nga ni eh, tay yéen génération bi. Mhm. mo ëpp chance génération bobu ak fo teg loolu. parce que euh, jamono bi ñu toll nii nouvelle euh, nouvelle technologie bi dafa avancer de telle sorte que euh, dara mënatuñu jaaxal au fait comme lim mu doon wax. yow tey si nouvelle technologie bi si nga basé wu non même si dañ basé parce que nous ak jamono ñoo mengo fiñ on parce que nous sommes au 21 euh, e siècle mhm. donc dañuy and ak jamono di dem te jamono buy dem da ngay and ak mom di dem loolu lañu wax loolu gis nga damay revenir si li nga wax Togo légui euh, jafewul parce que euh, nous mu sax c'est-à-dire comment dirais jàppale ma euh, kii bi nu mu tuddee. damay euh, waxatee ni ñoom daal ñu ngi nii rek lépp dañu koy téléchargé. technologie bi léegi lépp ci am. <laughs> dañuy téléchargé lépp. attends waaw baax na bu ñu téléchargé comme ñu ngi téléchargé di jàng rek baax na comme ni ma ko waxee man parfois euh, damay jël exemple si man parfois damay bëgg togg leen benn benn plat ma ne xaar ma dugg Google. Mm-hmm. astafurlah euh, YouTube. Mm-hmm. daal di tàppe su ma tàppee tur bi nga xamante ne moom laa bëgg a togg mais effectivement lépp lañ lay indi du am benn benn loo xamante ne da ciy ma daf daf ciy manqué donc kon nga xamante ne euh, génération bi ñu a ne moom bi ñëpp yeewu non non non non. a rek yow la ba a ngi xaar ba léegi parce que yéen lu ngeen lu ngeen lu ngeen focaliser analyser yëpp technologie. lépp technologie la yéen tey seen seen yaram bi dafa seen yaram bi dafa tàng. dafa dellu leen seen utiliser wu leen bi. ñun ñu koy utiliser ñu nag ak nuñ ko war a utiliser parce que. ah comme ñun rek mën nañ ko utiliser sans danger parce déjà xam nañ fu ñu war a jaar yëpp ah comme ñum rek. mais nag yéen da ngeen jug bërët. non ah, lépp. moo tax nag ah, da ngeen di dal génération bi nga xamante ni moom mooy nouvelle génération. Mm-hmm. génération bi léegi. comme li ngay wax tàkku tey est ce que yaakaaroon ni cheveux yooyu ngeen bëgg. Mm-hmm. ak mees yi ak yéen yi nga xamante ni wekku leen ko ci seeni i parents. Mm-hmm. est ce que itam du moom mooy yóbbee ñenn ñi si ay tooxi doona même pas ndaxte léegi li ñuy dégg. ci ay bêtises ci ay yenn le motif yeeg yenn yi yëpp léegi lañ ko commencé dégg de pense que ay temps daawuñu ko woon dégg. xam nga ku nekk ak yoon bi nga xamantene mom nga choisir. moy mm-hmm. euh, comme lima wax sank rek fi ku fi bëgg bon. Mm-hmm. yow la neex. parce que euh, c'est-à-dire utiliser li nga xamantene comme ni nga wax ay cheveux naturels xam nga loolu dafa bokk si si si dund au fait mom moy tax sa ñu naw la parce que nit bo génnee tak ma ñëw ma ñëw tuti ma ñëw fofu bala mm-hmm. may ci ci ci nga wax. cheveux mo tax ñu naw la. moom laa lay ah, bàyyi bàyyi ma développé bàyyi ma développé c'est-à-dire nit ku nekk sa image moom mooy tax ñu naw la hmm. parce que jamono bii boo boo solowul génn solu rafet hmm. ñu ne ah kii de moom dama ko dama ko yërëm hmm. pourtant kii lay yërëm noonu du la dimbali mais su fekkee nag malgré amoo dara mais yow yaa ngi def ba mu baax macha allah di defar sa sa bopp saa yoo génne ñëpp naw la amaana kon kenn kenn du la yërëm foofu alors mais tàkk tey nit euh, teg na ci kawam col bu 500 génne nit ñi nawloo ko yëpp mooy comme li ma la wax rek c'est-à-dire ko si li nga xamante ne moom mooy chauffeur mais nit booy génn au fait boo yorul dara sax yow defaraat ba mu baax macha allah bu ko defee. kon daal yow yow nit ñi naw yow su bëggee dégg maanaam que ni nouvelle génération bi ni muy doxee nii yow ànd nga ci loolu. ndax moom moo tendance. mooy tendance. moo tax tendance jamono bi ñu toll nii. moo xew tendance rek conséquence <laughs> après fait conséquence. conséquence waaw waaw loolu la ngeen di nit ku nekk rek ngeen di dundee. <laughs> noonu rek yéen daal yéen a ngi noonu rek. <laughs> ñun daal ñu ngi noonu kon bàyyi leen ñu nii rek ñun daal bàyyi leen ñu ñu doxal ak suñu. jamono bu ngeen bu ngeen jàllee la leen ba jël nag nag euh, li nga xamante ne nii mooy mooy mooy euh, comme ni ngeen koy waxee ni tendance. Mhm. day day day baax tuuti. ngeen delluwaat ci pegg yaay yaay nangam. noo dañuy laajte wala nangam. xam nga ne dañuy laajte wala noo yéen amu leen. non si si dañuy laajte de. non yéen amu leen euh, yëpp. cheveux bu gën a gudd. Hmm. lan moo tendance. Euh, iPhone iPhone. gis nga kii bu génne ondile bi piano bi. non mu ngi wàcc. non sacoche bi nag yaa ngi juum. non yéen jot boobu rek ngeen am. non même pas boobu jot rek am. xam nga lu ko sañ wax na lu nekk ak temps ma ko sañ wax parce que am na ñi nga xamante ne nii macha allah mhm. yàlla may na leen parce que tamit règle boo gis am na exception du ñëpp euh, ñooy jàdd fi nga xamante ne ni mooy yoon bu bon ba mhm. ñiy baax ñu ngi baax ba tey mhm. mais nag parfois da dangay baax a baax ba mhm. après da ngay am àndandoo yoo xamante ne ni dañ lay yóbbee loo xamante non loolu moom je suis pas d'accord c'est regrettable quoi c'est regrettable donc nag di bàyyi xel fi ngay fréquenter parce que nit comme ni nga ko waxee léegi wax nga ko léegi nit buñ defee ci yow yar am na loo xamante ne nii doo ko def. même boo tëjee góor si nekk sax doo ko def. jeex na mi ngi noonu. comprendre nga. Mhm. mais nag c' est pas donné à tout le monde. Mhm. parce que am na ñi nga xamante ne nii amuñu jotul jege seen yaay amuñu jotul dara. Mhm. ñoom jotul dox dox dox dox rek lañ am. donc kooku pour góor détourné ko pour nax ko day yomb parce que. mais est ce que est ce que parents yi itam ñoom am nañ jotu toog di waxtaan ak seen ay doom. si si bien sûr mais alors tey bëri na bëri na parce que xam nga la moo tax dañuy focaliser wu ñoom dañuy focaliser wu lu bari bari ci seen ay liggéey donc amuñu temps bobu liggéey am mo waral nak nouvelle génération bi ñuy dugg ci ay. si yéen yéenay di yéen nouvelle génération bi yéenay tax ñuy liggéey. mais que suñu suñu amuñu liggéey ñu ay temps yéenay tax ñuy liggéey parce que pour lan sauver suñu honneur doom. Mhm. parce que xam nañ leen buñu leen seetaanee da ngeen di dem nakatu su dul noonu. Mhm. moo ñuy daw suba ngoon

donc yaay bi mënul toog noonu. waaw léegi yaay boobu nag dafay sonn moo tax parfois nag ñun tam il faut même lu mu sonn sonn lu mu dina am temps pour ay man je suis contre que yaay boo xamante ne dafay topp. alors euh, Kandji ma ñëw tuuti si si si si foofu nga xam ne fa nga nekk tey ñu gis aussi euh, yenn tey nouvelle génération yi ah tàkko sëy yu bari dafay gaaw a tas ndax sëy yi léegi boo xoolee da ngay dégg un mois bu yàggee ba yàgg sax nee a un an lay duré ñu la tas nag ana tey lan moo waral loolu nga lan nga yaakaar ni tey moo waral loolu. Euh, xale yi ñoo sëyatul ni mag ñi daan sëye walla itam góor ñi ñoo téyetul jigéen ñi waaw lu ma ci mën a wax mooy côté góor côté jigéen yi yëpp laay boole parce que boo xoolee bu njëkk hmm. ni mag ñi daan sëyee hmm. xale yi sëyeetuñ ko hmm. bu njëkk ba mag danaan toog yaay ñëw ne ko ah sa doomu bàjjen diw de dafa la bëgg a jël soxna nga ne ko yaay foo ma dugg rek dinaa fa toog sëy ndax gis naa ni ngay sëyee yaay boobu day am fierté kontaan pour bu nga doom mu dem sëy doom bu nekk bu mhm. njëkk sa yaay moo daan nekk sa référence sa référence effectivement mais ak monde bi léegi mhm. sëy un mois parce que lan non dama ci dugg ubbeeku rek après mooy loolu damay seet koo xamante ne nii am na mën na maa yor deux mois trois mois ma génn ci récolté ci dara après ma dem toog xaar leneen léegi góor bu xam loolu noonu moom it mu ngi xool beneen jigéen boo xamante ne ni moom tam mu ngi pare pour fayee ko mhm dana kii alal la bëgg man tam dama koy topp ba ci loolu man ni su ma amee lu ma bëgg ci moom deux mois trois mois ma tappaas ko ne ko fase naa la may naa la sa baat xale yi léegi sëyatuñ mhm. sëyatuñ il faut le dire sëyatuñ parce que ama amatuñu repère amatuñu repère elles sont perdues elles sont perdues totalement nag parce que valeur yi yi war a war a nekk ci jigéen pour mu pour mu sëy dafay manqué ci yow alors euh, tàkko mu mel ni ñoo déggandoo Kandji Socé li mu wax ci nouvelle génération bi léegi mhm. nee na valeurs yi nga xamante ni moo amoon ay temps suñuy yaay ak suñuy maam moom moo xaw a manqué ci génération bi euh, nu mu tuddati sax euh, pourtant Demba mhm. xale yi xale yi jamono yi léegi yii nii mhm. pourtant xale yi ñoo ngi sëy ñu ngi sëy bu baax a baax parce que ñu kenn ki nga xamante ne dafa bàyyi yaayam bàyyi papam bàyyi léppam ñëw ci ki nga xamante ne na moom la bëgg donc kooku noonu bëgg na sëy sëy moom moo ko tax a jóg mhm. waaye liy waral parfois tâche yu bëri yi euh, mooy que góor ñi si boppam ñoom ñooy égoïste benn côté parce que ni ñu war a teewee seen ay soxna duñ ko teewee noonu wala euh, li nga xamante ne moom lañ daan moom lañ leen daan dig si li nga xamante ne moom mooy ngoro bi buñ ñëwee si sëy bi du fa feeñ est que itam jigéen ñi ñi nga sëy lañ la la suñu maam ñi daan sëy sëyatuñ ko que itam ñi ngi dégg di déggal seeni borom kër ndax defe naa ne xaar ku def ci yow alal mm. ma ñëw tuuti tàkk ku def ci mm-hmm. yow alal mm-hmm. jëlee la teral la indi la këram defe naa ni doo doo doo doo doo jum benn ndaw rek mu génnee la si. moo tax ma ne la pourtant kii ñëw def mais euh, euh, comme ni nga ko waxee moo tax ñun tam ma ne la euh, ki nga xamante ne tam dafa bàyyi léppam daal di ñëw ci yow ne yow rek la bëgg góor ñi ak lu ñuy bari bari ci àdduna yow rek la ci taa taamu. ñëw ci yow. donc kooku am na mais bul fàttali tamit ku góor tamit lu jigéen ñi di bari bari bari yëpp yow rek la ci taamu aussi. <laughs> wa je suis d'accord mais bon le plus souvent dans mom euh si les lay mhm. parce que au fait euh, mën que je li nga ne lañ doon mom lañ ci li li nga comme say say say ndax dig mom boko boko xasse don lar rek mhm. day don lo xamanteni lolu xawa xawa genn ak ak ak sey bi ménage bi oh, quoi tay lutax nga lutax nga lan moy dig en fait parfois man nga man nga nek ak sa copain mhm. avant sey bi man nga nek ak sa copain mou mhm. lay euh, wax lo nga neku ci mom c'est-à-dire di dila wan lo xamante amuko nan lan amna keur am wala am naa oto wala am naa lii am naa la soo ñëwee dinaa defal li dinaa defal li yow nga am confiance ci moom ba nga xam ba nga dugg ci moom bàyyi ñëpp dugg ci moom mm-hmm. soo ñëwee loolu doo ko fa fekk donc loolu wor première première chose bi nga xamante ne moom moo fa xe moo fay xew rek mooy wor te ko loolu ci ko góor ki la jóge pourquoi pas li nga xamante ne moom moom nga am mais nga wax ko ki nga xamante ne moom moo la bëgg su fekkee bëgg na la dina ci ànd ak yow su la bëggul tam mu dem bàyyi la bàyyi la nga dem xooli keneen mais euh, comme ni ma koy waxee rek chaque jour Euh, relation bi c'est-à-dire lan mooy base bi mooy communication ba. xam nga te foofu noonu chaque jour daf fay manqué donc communication bu manqué si euh, sëy rek donc problème chaque jour dafay juddu d' accord waaye ba tey tàkko ma dellusiwaat itam ci ci am na lu ma la wax tontu woo ma si tàkko mhm. est ce que itam du jigéen ñi ñoo doon sëy euh, doon déggal seeni i borom kër mhm. doon sëy na mag ña daan sëyee mhm. doon def itam li nga xamante ni jëfe ñi leen seen yaay yi di leen yabee ak seen bàjj est ce que loolu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi existé ba léegi pourtant mu ngi existé ba tey comme li ma comme li ma la wax sànk rek pourtant maa la koy wax euh, mu ngi existé ba ba tey ndaxte euh, benn waajur bàyyiwul doomam si loo xamante ne moom. ndax nag ñu waxante dëgg ay temps. Mhm. da nga daan dégg diw sëy ak diw def ak moom ay at ba mu naan la sama sama nijaay de. Mhm. maa ngi ñaan yàlla mu suul ma. wala itam diw de maa ngi ñaan yàlla tey mu suul ma. <laughs> waaye itam léegi moom dootoo dégg kenn ku si muy maram moom yàlla ko nga suul ma mun la <laughs> maa la suul ñoom amatuñ time boobu parce que boo nee sëy. Mhm. sëy boo ko déggee rek nekkul ne tout à fait euh, pour éternité bi yëpp plaisir la. tey day métti. suba mu neex ginnaaw suba mu neex ginnaawaat suba mu naqari. Mhm. en fait boo seetloo naqar bi yëpp moo ci ëpp. Mhm. léegi yow su fekkee ne da nga jàpp ne plaisir bi mooy mbégte mi rek. Mhm. boo demee ba gis naqar bi amuloo patience maanaam soxol tojul pour nga muñ. doo fa yàgg. mais ki nga bëgg a

non décroché na kii appartement la ma tagal oto bi nangam moo may jël si chauffeur ainsi de suite ainsi de yow yow yow li nga gis rek mooy li nga xamante ne moom nga bëgg. alors Kandji Socé ba léegi ñu daal di dellusiwaat itam ci li nga xamante ni juste moom moo di nouvelle génération bi léegi tey euh, le motif yi nga xamante ni dañu koy gis léegi euh, muy muy fuite yenn audio yeeg yenn vulgaire yi ngay gis est-ce que loolu amoon na ay temps wala bu amoon wala bu njëkk dañ ko nëbboon wala sutura dafa bari woon. bu njëkk ba sutura dafa bari woon Demba ba nga xam ne euh, lu waay di def it euh, daf koy sóor. Hmm. wala mag ñee yore woon nopp gar mi du dégg lu bon. duñu mag ñi sax dañ daan dégg mais dañ daan déet bu mu jëm kaw ndax euh, loo xam ne bu yeggee ci penc ma mën naa yàq. Mhm. nañ ko waxtaanee fii gas ko suul mais léegi loolu amatut. léegi ku ci nekk yaa ngi yàkkamti xamal sa morom. Hmm. ba nga génnee ko ci biti. mooy audio yi fi wite ngay waxtaan ak nit wóolu ko jox ko sa bopp mu di la

def telle sorte que yow pour nga def la def nit lu lu métti doo ko tu n'hésites même pas à le faire. Mm-hmm. Mm-hmm. da nga dama koy def après j'en gagne beaucoup. Mm-hmm. alors que yow yaa ngi def loo xamante ne ëllëg mun na la jural musiba. ndax ki ngay weer tey bu subaa mun na la téye loo xamante ne bu ko waxee àddina tukki. d'accord eh, tey bu ñu nee nouvelle génération bi ñu gis eh, yenn parfois nga daal di gis ay yenn audio yu doy waar mu future wala soit ay lu vidéo wala motif comme ni ko gars yi di di di ko waxee léegi. Mhm. ndax dañuy gis événement sax bu amee lan demee événement bi ñëppay toog di xaar le motif yi ndax ku nekk da naan le motif am na fii le motif yaa ngi koy dégg fii est-ce que itam tey du xale jigéen ñi seen ñàkk doylu moo leen di yóbbee yenn yi wala seen bëgg-bëgg ne rek moom mooy Adama ndaxte macha allah li mu wax moom dama ciy parce que en nit ku nekk da am sa valeur bopp. xam nga te ku ñuy euh, ku kuy roy si sa ay ay parents. Mhm. mën na am yenn yi doo ko def. Mhm. xam nga mhm. donc mën naa ne loolu tamit euh, ñàkk sutura dem moo ngi ci. ndax jamono bi ñu toll nii léegi lépp dañ koy maanaam lépp lañuy wili pande lépp lañuy wasaare si réseaux sociaux. Euh, rawatina nag jëf ju ñaaw. xam nga léegi jamono bi ñu toll nii. kenn euh, c'est-à-dire jëf yu baax yi dañ koy suul mhm. mais loo xamante ne dafay ñaaw boo loo xamante ne soo ko wanee mu tukkal àdduna ñëpp koy wane mhm. képp ki nga xamante ne daf ko dégg mu dars ay noppam wala mu taf gémmiñam mhm. loolu rek la ñuy daal di génne euh, ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux te loolu moom vraiment euh, xale yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dëgg neex yàlla ndaxte lu lu ñaaw xajul sim réew ndax loo loo xamante ne su ko génnee dëkk bi ñëpp Euh, daal di taf seen gémmañ donc mm. loolu dañ ko war nëbb mm. ndaxte lu du jàmm nag jàmm moo ko gën dëgg fa yàlla alors est-ce que itam jotul xale jigéen yi mm-hmm. yemale seen bëgg-bëgg ndax xam naa ni euh, am na amaana yenn yoo xamante ni mm-hmm. euh, xale jigéen yi ñoom ñoo koy yóbbee seen bopp ndax comme ni ko Kandji Sose di waxee mm-hmm. je pense que nit boo toogee ci say ci say ci say pooju comme ni ko gars yi daan waxee est-ce que yenn yu bari dina la fekk si waaw euh, mën naa ne sax peut-être. Euh, wala nga doyloo itam li nga xamante ni moom la la say parents di jox wala li nga am. Mhm. mën naa am sax doylu nañ. Mhm. mën naa am sax xale yi doylu nañ ndaxte kenn ku nekk. Euh, comme ni ma ko waxee sànq rek comme ni la sa ay say parents bu ñu la yaree si doylu donc di nga doylu waaye parfois dañuy réer. xam mhm. nga parfois dañuy réer duñu xam lan la ñu war a def. wala ñu roy dàq. xam nga comme ni ko sa kànji waxee sànq donc parfois loolu moo ñuy nax le plus souvent voilà. alors di leen jaajëfal bu baax a baax yéen téléspectateur téléspectateurs yi nee naa leen nag tey sama ñaari chroniqueurs yi seen yaram yi dafa tàng waaye rawatina itam man mi nga xamante ni maa toog ci ci seen biir xaw ma sax fu may féete fi mu toll nii ndax nee naa leen naa leen bàyyi yéen rek ngeen juge ah voilà ci commentaire féetal ci mag ñi daal féetal ci mag ñi instant bii nii dañ may xëccoo féetal ci mag ñi ndax nouvelle génération bi ñoo ëpp mujj mag ñi ëpp mujj toppal mag ñi non naa bàyyi génération bi ngay féetal génération bi da ngay réer léegi naa bàyyi téléspectateurs yi rek ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy suivre ci internet bi ñoom ñu wax ma man fi may féetee exact ndax moment yi moom ah, dama xaw a réer yéen ñaan ñoo xawma ci kan laay bu ma demee si kii kii mën na mber bu ma demee ci kii mooy loolu waaye ma des ci kii rek <laughs> toppal ma <laughs> mbaadu alors bu ko defee ñu daal di dem euh, seeti ki nga xamante ni moom moo di Kandji Socé nga daal di ñuy résumé li nga xamante ni euh, moom moo daal di fës ci internet bi moom mi nga xamante ni mooy découvrir li nga xamante ni moom moo di euh, showbiz mm. waaw Demba di wax indi rek li nga xamante ne ni moo fees ci internet bi

ce bi mu defoon fele ci France. Mm. Euh, ñep di wax war won na teug ñi naan na teug ñi naan dafa def ni ñi naan dafa def euh lool dal la indi ci euh, rubrique euh, ba benen yoon

essayé nañ ko enu ñoom stressé sax faaw faaw ñu yenu ko nag stressé wuñu ñoom dañ ko enu moom mhm. yéen kay yéen a ngi noonu da jël leen <laughs> faaw ñu préparé nag bàyyi leen ñu jël leen rek <laughs> yàlla baax na euh, euh, Kandji Socé tey ñu ñëw ci li nga xamante ni aussi moom nga terminé léegi muy euh, polémique bi nga xamante ni moom mooy daw ci soirée Wally Seck bi nga xamante ni moom moo di Dôme de yi est-ce que itam Wally du liggéeyam lay def ndaxte manifestation bi ba mu amee ca lendemain bi ba mu arrêté ku nek xeyna dem liggéey sa liggéey moom tamit defe naa ci contrat wu jambour la nek te itam ci liggéeyam la nek waaw ci liggéeyam la nek ndaxte bo xolé walé lépp lo xamante ni rek luy luy luy gàllankoor la rek dana dama nan du ci du ci bok parce que tamit nit la. et domi jambour la et julit la. xamna bu baax lu muy def xamna na fu muy teg tànkam aussi. ba tax ne kon. manifestation yi amoon na jàll na ku ci nekk delluwaat nga sa activité. Mm-hmm. te moom tamit contrat jàmbur la jël. Mm-hmm. dagguloo ay doomu jàmbur seen biir ñi jóge fu nekk. donc bu ñu nee moom warul tëgg soirée boobu dama yaakaar ne dañuy wax euh, loo xamante ne nii lu leen neex la rek. Mm-hmm. mais Wally responsable la. Mm-hmm. en plus euh, am na loo xamante ne ni mu ngi koy xaar tamit. Mm-hmm. liggéey bu nekk liggéey voilà te euh, ku nekk sa liggéey nga am. donc du jël engagement boobu. ñëpp ñëw ba foofu ñenn ñi dagg seen i ñëw ba foofu mu ne leen c'est annulé loolu neexul si xol. c'est voilà donc ñi ñi koy clash tamit dañu dañu bàyyiwul xel rek. waaye amaan na buñ xoolee ba ci biir ñoom duñ ko def. dëgg la alors ki nga xamante ni moom moo di Tacko Tacko tey ni nga gisee gisee ñu suspendre Walf ana lan nga yaakaar ni moom moo waral mbir mi. Euh, voilà. Euh, comment dirais je wa demba ma xalla dama dama añul tay motax dama yakane ni la <laughs> kanji mag ñe ko do li la kanji do tay momit mag ñe est ce que est ce lol tam mag ñi tay dañ lo set seto non mag ñi dama amato lay sang lepp yaangi fatte sama tour tak ma sa jéggalu ma ngi jéggelu bu baax ba voilà di contact bu baax ci question bi mais dama lol mom deug ni yalla hmm. eh, eh, rafetlu maka ndax té su féké société boutonne et ni euh, plus de 200 personnes nekk fa di fa liggéey di daan seen doole euh, rien que rek lu ñu euh, yaakaar weer mhm. mu dee ñu fay leen ñu daal di yóbbu si seen ay jaboot mhm. xam nga nga tëj nga nga daal di couper li nga xamante ne mooy seen signal mhm. donc loolu euh, lool nga leen ndaxte su boobaa mën naa ne dañuy nekk ci un mois de chômage xam nga mu doon li nga xamante ne daal dëgg neex yàlla rafetlu ma ko te àdduna nag loo gis waxtaan la rek waxtaan ba juboo ndaxte fu waxtaan amul juboo dafa am xam nga loolu moom franchement man moom rafetlu sañoon euh, ñu daal di bàyyi leen rek ñu ñu ñu liggéey xam nga kenn ku nekk delluwaat sa ay activité mm-hmm. su ko defee nga mën a euh, tranquille ci li nga xamante ne rek moom moom nga nekk alors ñu ñëwaat itam ci li nga xamante ni moom moo gën a fës ci showbiz bi mu nekk mm-hmm. polémique bi nga xamante ni euh, nit ñi ñu ngi koy def ci réseaux sociaux yi soit ci TikTok bi ak commentaire yeeg mm-hmm. ci li nga xamante ni moom moo di Dôme de Paris bi Wally def est-ce que itam Wally ci liggéeyam wala mënoon na stand by affaire yi waa xam nga ni ku nekk nag si li si sa liggéey nga nekk te comme ni wax rek te liggéey boobu yaakaarooti lu dul euh, satisfaire sa ay jaboot mhm. donc man foofu gisuma si loo xamante ne rek lu lu maal la. Mhm. dëgg neex yàlla. Mhm. ndaxte kenn ku nekk liggéeyam lay nekk au fait. Euh, manifestation yi jàlloon na déjà ba paré mhm. donc kenn ku nek war nga mëna déllu ci si sa sa barab n'est-ce pas. Mhm. voilà donc euh, loolu daal wax dëgg ni yalla gisuma ci lo xamante rek euh, lu ñaaw la franchement. alors <laughs> nañ bàyyi doomu jàmbur mu liggéey. kese waaw nañ ñuy bégal ba ñu bég daal macha allah <laughs> ñun ñun génération mag ñi sa léegi wu ñuy ah, bégal. ah jeex na mu ngi mag gis <laughs> waali rek. Mbadou Magu Demba yéen a ko moom Demba ñoo ko moom. léegi naa xale waali ak magi waali wa gis nga waali toj na réew mi maa la wax di. ayca mu nekkoon li nga xamante ni moom moo gënoon a fës ci showbiz bi mu nekk itam li nga xamante ni moom mooy polémique bi ci entre soirée Wally Seck bi nga xamante ni moom moo am fële ci Dôme de Paris waaye ca gars yi nag nee nañu ci ci liggéeyam la nekk tamit ci contrat yi nga xamante ni moom la signé woon moom lay liggéey ndax nag manifestation ba mu jàllee dafa ku nekk da nga daal di mason bi daal dem xëy kii liggéey marché dem xëy moom itam c'est normal mu daal di dem àggale li nga xamante ni moom moo di euh, contrat am mhm. aca tey ñu daal di delsiwaat ci thème bi faaw ñu duggaat ci thème bi ah, waaw faaw ñu dellusiwaat <laughs> voilà faaw ñu dugg si thème bi <laughs> alors euh, <laughs> tey tàkko mhm, mhm. ana tey yow euh, nan ngay nan nan ngay doxalee ci moment yi ak ak ak mi toll surtout moment wu tabaski bi nag nan nag naka ngay préparer parce que nouvelle génération bi lañu wax yow nga toog fi tey ndax suba ba léegi ñu ngi gis ci say kàddu mhm. nouvelle génération bi ngay défendre donc tey yow mhm. tabaski bi jib na nan la mhm. ngay préparer waaw démb comme ni ñu ko daan defee euh, daaw ak daawaati jéeg rek xam nga ren dañuy ñëw rek daal di ngeen jëm <laughs> <laughs> non ren dañuy pas non ren ren dañuy changé. pas leen def da ngeen a pas de <laughs> changement non pas de changement vous rek. <laughs> ren dañuy changé le de donc euh, comme ni ko daan defee nga dinañ def ba mu baax di sañse suñu ay sañse yu rafet nga. Mm-hmm. suñu ay suñu ay di ak suñu ay xarit nga euh, suñu euh, donc fa euh, dafay laaj nga daal di xam benn yoon la ci at bi waaw mais mais terewul moo tax da ngeen koy pare dañ koy pare faw ñu pare ka

waaw métti rek dem Demba métti métti ku ne xam na situation bi nu mu demee fu mu toll nii euh, tout est bloqué ba nga xamante ne nii nu mu daan demee du ko demee noonu. Mm-hmm. Euh, di ko euh, sant yàlla rek. Mm-hmm. sant yàlla rek te nu mu ñëwee rek ñu ñu ko noonu. incha mm-hmm. allah nu mu ñëwee rek ñu ñu feete ko noonu te xam ne loolu la yàlla dogal. non day baax sa incha allah. ayca di leen jaajëfal bu baax a baax yéen fidèles téléspectateurs yi ne naa la nag nii rek la ñuy daal di def ak yéen daal di dàq naqar dëkkal bànneex ci seen xol naa fi ngeen ne moom kontaan ngeen ndax tey nee la nag plateau bi tey daa xaw a daa xaw a tàng daa xaw a jax alors tey tàkko mhm. yow mi nga xamante ni yow yaay ñëw ci li nga xamante ni moom moo di nouvelle génération nga découvrir une rubrique mhm. ana tey lan nga ñuy tegal ci table bi ndax tey da nga ma toppandoo ndax dama ñu rek thème bi tey dafa nekk <laughs> nouvelle génération <laughs> du moom moo ma toppandoo copier rek la def dañuy <laughs> copier gis nga non moom moo copier koy télécharger dañuy télécharger baal naa la may naa la ko Demba comme ni nga ko waxee rek euh, donc comme tey thème bi euh, nouvelle génération la Euh, tey jamono bi ki ñëpp xam nañ ne rek ñu ngi si li nga xamante ne moom mooy euh, période tabaski bi ba tax na rek ma daal di demoon euh, ba Kër Mbay Fall daal di fay jël li nga xamante ne rek moom mooy ay ay élément pour ñu wax si li nga xamante ne rek moom mooy comme li ma indi tem tey maanaam xale jigéen yi nga xamante ne rek à chaque fois dañuy dugg ci góor ñi di leen baraan xam nga donc si c'est bon du côté de la régie rek ñu daal di jël élément bi daal di dikkaat ci li nga xamante moom mooy plateau bi. waaw euh, dem si xale yu góor yi dimbaraan moom je pense que ni loolu ñàkk gëm sa bopp la en fait parce que li góor di def di liggéey ba di la ko may pour man yow mën nga war a mën a xëy tamit dem di liggéey di daan sa doole parce que bu dee da nga nekk soutien de famille am sa yaay boo war a defal ak say rak ak leneen mënoo jël sa lépp wekk si góor ñi di leen xaar foo nga dem liggéey. dem di jox du ñàkk nag am nga ki nga bëgg kooku noonu mën na am sa yërmande dimbale la nga doole ci li nga am dem defal say waa kër mais munoo basé wu ci góor bu fekkee danga nga basé wu ci góor bañ na suba la tabaski mu doog la defal donc yow sa rakk yi nga am ak sa yaay ak ñooñu ñi nga war a defal kan moo leen di defal donc je pense que ni ñun dañoo war di xëy di liggéey comme ñun ñu toog fii ñëpp dañuy xëy di dem jënd suñu balu fëgg jaay di jaay di liggéey di am lu ñuy am di dimbale suñuy mbokk dimbale suñu bopp loolu laa gëm mais pas dem di léegi hormis le fait de d'aller chercher un mouton pour sacrifier à la tradition dañ ciy boole euh, manam tout un tout un arsenal de de de de de kut ay ñaw yére bu bees dàll bu bees greffage bu n'est-ce pas donc jigéen dafa sonal boppam dafa sonal boppam léegi nag bu fekkee say waajur euh, sen loxo jotul sen gannaaw euh, c'est-à-dire bi doom de donc lolu nañ donc ils ont présagé n'est-ce pas de ce qui pourrait se passer dans l'avenir parce que jigen yi vivent le monde de la concurrence vraiment euh, donc comme diou def na li et c' est pas donné à n'importe qui parce que yàlla bind na mais yemalewul wërsëg ku nekk ak sa wërsëg. waaw mais affaire yi moom xam nga thèse la ñi dañuy défendre ñu rejeté ku nekk ak li nga bëgg ku nekk ak li nga opté ndax ñun dañuy teel a dem liggéey dagg suñu balu fëgg jaay ma nga nale di liggéey am lu ñu am te ku nekk nag yaa ngi gis ki nga nekk da ngay bëgganteeg moom di dund ak moom li ngay dund ak moom lu mu la may nga dooli mais mbaraan pour man yàq sa der la parce que da nga yaakaar da ngaa xew te xewoo sax góor ñi sa numéro ñu lay woo nga yaakaar yaa xew fekk mosoo xew man daal gëwmaloo liggéey daal la jamono juñ toll nii tembe liggéey la xale yi woote. xale góor yi gëmuñu dara dañ leen di rek ku ci am sa liggéey bu baax daal booy ba téye ko sa fukki loxo boo liggéey dimbali say waajur dimbali say doom mbaraan moom boo xasee tàmb sax gaa ci ni ma ko gisee man doo yem ci kenn bu boo ma jëkkër doo yem ci kenn te loolu baaxul. alors euh, mu Linga li nga euh, rubrique bi nga xamanteni ni nouvelle génération. Mm-hmm. Euh, Tay itam ñu gis li li li suñu suñu macha allah merci beaucoup du côté de la régie Demba hmm. de ngeen bu baakha baax li nga xamantene rek rek euh, euh, cadeau yu rafet yi nga xamantene rek wa population keun bay Fall wax nañ ko euh, waye kenn ku nek rek xam nga ne tabaski dafa doon li nga xamantene rek dafa sacré ñepp kep koy jullit rek dang koy di xaar diko ko préparer bu baakha baax xam nga mais tam d'accord na ci cest à nga defar taaral bés bi ba mu taaru xam nga parce que loolu la ñu wax ndaxte lislaam sax dane euh, bés bi bu ñëwee nañ ko taaral ba mu taaru nit ki mën nga euh, jënd cest loo sol xam nga def dafa def si lu rafet du nice mais si ay anam ak condition yu rafet yi nga xamante ne rek euh, lu ñaaw du la ci fekk ndax tabaski neex na lool lool lool waaye benn fan rek la donc lépp luñ ciy def rek war na rafet ba ba nga xamante ne yenn conséquences yi donc duñ ci fekk comme ni ma ko comme ni ko sama naataango yi waxee rek donc ngi alors Kandji Socé ñu di seetaan li nga xamante éléments, moom moo di élément la di découvrir mhm. alors tu euh, mu di mel sa wax des dafa dal di feeñaat ci li nga xamante ni moom moo nous eh, élément bi ndaxte euh, suñu yaay jooju ak da nga daan la xar mhm. xalaat euh, li jëm ci xar bi ndax xar bi kenn du ko lekk moom kese mhm. waaye itam da nga ciy boole cheveux bi bi ñu waxoon sànq mhm. nga boole ci tissu boole si dàll bu bees boole ci leneen ak leneen ana say lan nga gisee li nga xamante ni moom moo di élément bi nga xam ne tàkk moom la découvrir waaw am na solo loolu maa ngi koy euh, jaajëfal bu baax ci liggéey bu bu rafet bi mu def euh, di di di wax rek ne li li li maman bi wax c'est tout à fait c'est c'est tout à fait logique et tabaski takk wax na ko léegi du benn fan benn fan la plutôt du ñaari fan du leen benn bés dong la mm-hmm. donc boo koy boo koy fete tamit comme ni ñu ko wax rek bés bi na taaru. Mm-hmm. mais nag nga ànd ci ak dal ànd ci ak xel ba ëllëg. Mm-hmm. boo tëddee mën a nelaw. Mm-hmm. ndax nee naa la ku ci leb bor. boo ñuy rendi xar mi sa xel mi dem ci bor ba. <laughs> ku ci jël alalu jàmbur sëba. yaa ngi naan moom kay fu mu toll ni xar mi rendi nañ ko sama xel mi ci sëba bi lay dem doo doo. tey heure rek la nag war a tabaskee donc nag nu mu ñëwee rek. ñu daal di ko féetee noonu rek. te xam ne loolu la yàlla dogal. nu mu ñëwee rek nu mu toll rek. daal di ko féetee noonu rek incha allah. àdduna sax da ngay daal di nelaw jeex na jaru ko fi. alors tàkko ñu daal di gis itam kenn kii mi ngi ni moom dafay daal di daaj li nga xamante ni moom moo di balu fëgg jaayam mhm. toog di si suturlu mhm. alors tey mbaraanul doxul ci ne leen te nee itam mhm. diglewul mbaraan ndaxte nee na ñi nga xamante ni dañuy mbaraan dañuy yàq seen der rek ndax góor ñi dañuy passante seen numéro nga defee ni yaa xew te xew alors tey nouvelle génération bi noonu lay doxee de tey bu ñaar passante seen numéro léegi nga ni maa xew man rek la gaay di topp man rek la gaay di alors dembaa comme ni nga ko waxee rek xam nga rek euh, euh, comme ni ma ko waxee sànq rek jamono bu nekk ak lu mu laaj xam nga mais bon nañ koy def ci anam bu rek kenn bañul mbaraan. xam nga baaxul sank legi yaay bay len ni di baaxul parce que en fait nga nek ak sa ben copain bu fekke c'est-à-dire eh, <laughs> li nga eh, xamantene li nga li nga soxla du la ko jox donc tu es obligé nga dem ci yeneen goor yi nga xamantene mën nga takku sank ba legi sank ba legi yaangi wax yaangi wax li li obligé ana muñ voilà mais doy kii la non non loolu beneen beneen beneen domaine la non non parce que maman bi wax na ko léegi yow <laughs> ba léegi ñu ngi dégg nga naan moment bi moo ko laaj wala jamono ji moo ko laaj ñu bëgg xam ji lu mu laaj mbaraan la laaj wala ndax si sa biir wax sànq ba léegi yaa ngi koy bantu di ko bamtuwaat. jamono ji moo laaj mbaraan euh, wala mm-hmm. dëkk bee metti wala ñu bëgg xam lan la exact comme ni ma ko waxee sama élément rek. xam nga ndaxte nouvelle génération bi bu bu mm-hmm. bu bu bu effectivement jubee. Mm-hmm. day mel ni kenn dootu si ànd teg sagom ngor dañ koy seppi teg ko côté. <laughs> jamono bee metti moo tax. jamono bi ñu léegi bu jamono méttee ana ngor. Mm-hmm. moo ma jaaxal ak ñoo am ngor nag. Mm. mais su fekkee comme ni ma ko waxee ki nga xamante ne moom nga nekkal. nga ne mm. moom nga bëgg su fekkee du la jox dara lu dul allo message jéem na tout légui tu es obligé nga dem si ñi nga xamantene ñom mën nañ la may au moins di nga ci mëna euh, c'est-à-dire nga jënd si li ngay jënd wala bu fekkee da ngay dimbali sa ay parents nga mën leen ci dimbali takko yaa ngi ci erreur ndax nit mhm. mën na la bëgg té du la jox dara mhm. nit itam mën na lay jox dara te fekk bëggu la mhm. <laughs> non je suis pas d'accord parce que nit ki nga xamantene ne ndax waykat bi sax way na ko ndax néna na bëgg na la ngir alal ki bëgg la ngir tar ngir taar ki bëgg la té yalla tax waaye mais yéen tey doo leen topp ki leen bëgg te yàlla tax da di topp nit da ngeen di topp ki leen bëgg ndax alal wala ki leen bëgg ndax taar bëgguñu kenn ndax alal mais ki nga ki nga dafa rafet nga nekk ak nit au moins même bu fekkee moom du la ñaan sax mais nga yëkkati sa alal mais est am na ko mais bu ko amulee est-ce que mën na ko bu ko amulee ak moo ko am am na kay non xanaa liggéeyuñu du ñëpp mais bu liggéeyee charge kër war ko dimbale yaay war ko dimbale rakk war ko. mais yow mais yow benn dërëm bi nga xamante ne moom ngay yëkkati di ko jox ak ki nga ki nga nekkal mais loolu. wàññi ko leen leen ko ñoo déggandoo bien sûr bu leen ko joxee du leen doy parce que yéen ngi naan li jëruñut ma dara xaaral yow làkk ko la ci ci Moussa <laughs> ñun ñoo déggandoo ni ko ni ko ni ko élément bi nga xamante ni moom nga jëlee waxoon ndax nee na ñoom mm-hmm. euh, xaaruñu dara ci ci ci ci ci ci copain wala ci leneen ñi ngi daan seen doole mm-hmm. est-ce que itam moom ni mu def daal di dem daan dooleem est-ce que yow itam boo demoon daani sa doole li nga li nga bëgg doo ko sa bopp ni liggéey waree góor defe naa noonu la waree jigéen. waaw loolu je suis pas euh, parfaitement d' accord parce que hmm. nit ku nekk au sax góor ñi sax satisfaire tuñu benn jigéen. xam nga satisfaire ñu benn jigéen franchement. kenn mënu leen satisfaire. waaw mi mi ngi. <laughs> koy rubé dama dara. <laughs> xam nga. Hmm. góor ñi léegi satisfaire tuñu benn jigéen donc. Euh, benn côté su fekkee da ngay basé wu si ñoom à doo doo doo mujj fen wala doo dem fen wala li nga bëgg doo doo ko doo ko am donc mieux vaut Euh, nga jóg yow tam nga dem lijjanti daan sa doole comme ni ko euh, euh, soxna yi waxee rek nga daan sa doole su ko defee rek ëllëg bu fekkee jox nañ la nga jël suñ la joxul tam nga daal di defar sa bopp la vie continue. alors Kandji Socé mu mel ni jamono ji léegi métti na loolu ci parent yi métti na itam ci góor ñi surtout waaye itam métti na ci borom kër yi ndax dégg nañ suñu papa ju nu mu ko waxee léegi bu njëkk mu mel ni mbir yomboon na. mbir neexoon na neexoon na bu njëkk dafa neexoon. Hmm. li Wally Seck naan magu démb yaa. magu démb ya ngi non est ok da ngay at non lepp yombol hmm. lepp lépp ba nga souci bo worona am doko am parce que yow say dom duñ la tek pression. Hmm. ne la par force li nga may jëndal wala li lay sol. yow ji da ngay dem choisir tissu nga jox ko ñi nga xamne ñoy goor ñi. ñom ñep ñu def ko uh, xaftaan niroole ko dem julli ji jumaa jigéen ñi nga xott leen benn tusi ñu ko ay rob mbaa ñu ñëw ko tay bass jamm dal na ñoy mais génération bi yërëm naa leen trop <laughs> alors ñu gis ko moom mi nga xamante ni moom moo ni euh, tàkko ndax moom nee na tey góor bu la bëggee wala nga nekk ak moom war na la mën a jariñ war na war na la mën a defal dara surtout tey sa copain wala sa sa sa far sax ni ko gars yi di waxee alors ñu gis itam élément bi kenn ki ni moom xaarul dara ci ci copain am xaarul dara ci góor gu muy génnal ku muy génnal ki mu nekkal mi ngi nekk ak moom waaye teewul mu ngi teg balu fëgg jaayam dem di jaaye alors tey Kandji en tant que euh, une mère de famille en tant que tey un grande dame boo xamante ni macha allah ñëw ci loolu d'accord nga ak ñi nga xamante ni dañoo croiser les di xaar dara ci góor wala da nga da nga d'accord ak ñi nga xamante ni aussi xeebuñu ñu seen seeni liggéey ndax ñi ngi teg li nga xamante ni moo di fëgg jaay bi toog di ko jaay man d'accord ma benn jigéen buy toog di xaar góor ndaxte jigéen da nga war a daan sa doole jigéen nee naa la kenn mënut koo satisfaire ndaxte suñu bëgg-bëgg moo bari. Mhm. donc daf ciy baax ngay ngay takk sa ndigg dem di liggéey su la sa jëkkër joxee baax na su la joxul eh, li nga xamante ne ni yaa ngi koy eh, ñaq nga jariñoo ko rek daal di koy yemale li nga xamante ni mooy sa bopp yemale bi sa bopp tamit nekkul ne da ngay jël lépp daal di koy def ci benn bés bi ndax dangay xalaat ne ëllëg am na. Mhm. après tabaski. Mhm. dafa am te day métti lool. donc nag eh, nañu takk liggéey surtout xale yi jigéen yi. nañu liggéey nañu liggéey. gis nga boo liggéeyee la ngay am doo ko yàq de parce que yaa ngi xalaat la nga ca daj doo dem di ko uti ay sëfa de ñi ngay jënd ay sëfa yëpp mbaraan rek <laughs> dañuy dem mbaraan musaa dem mbaraan ba daal dina toog na ne foog na ñoo ca nekk mais li nga xamante ne da ko ñaq di nga xool bu baax foo koy dugal kenn waxul na nag bul def xaru

voilà message bi ma leen di lancer rek mooy que euh, comme comme li ma indi euh, comme rubrique rek. Mhm. Euh, puisque ñu ngi nekk ci li nga xamante ne moom mooy période tabaski. te mhm. période tabaski nag képp ku ne xam na ne dafa bëri ay frais dafa bëri ay charges mais nag ak lu ci mën am rek nañ ko def ci anam bu rafet ba dëgg neex yàlla suñu mbaraan nañ ko mbaraanee ci anam bu rafet. mbaraan <laughs> xam nga mbaraan lay bañ a dégg mbaraan nañu mbaraan ci anam bu rafet fu ñuy dugg tam. ko xam bu mbaraan bi fa mu tudd ko. mbaraan bi da ko war a génnee na ba mbaraan bi xam nga. fu ñuy teg suñu tàngatam nañ ko xam bu baax a baax ndaxte ëllëg du añ du reer waaye nag. du mat a sédd la wax dëgg neex yàlla. alors ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la euh, ki nga xamante ni moom moo fi teewal nag euh, Kandji Socé. Mhm, voilà Magu Demba Kandji Socé mooy dara ban message ngay lancé xale xale yi di leen wax rek ñu delloo si xel yi. Mhm. nañ delloo si xel yi te xam ne lépp du benn fan. Mhm. Euh, nit da am avenir boo xamante ne mu ngi si sa kanam donc di ci bàyyi xel di ko sóor ndax nee nañ ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la. diñ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam lu ñuy doxee. xam na ñuy doxe kenn waxoon ne bul feetu mm-hmm. waaye nag la la yàlla jox nga xam ne lii la ma yàlla jox nga daal di koy feetoo rek daal di nekk ci jàmm mm-hmm. ah, dal di moytu yenn yi nga xamante ne rek mun na la indil musiba ëllëg alors comme ni mu ko waxee na ngeen daal di moytu yéen xale jigéen ñi waaye itam yéen xale góor ñi ndax nee naa la nag moytu ñëpp ko war a def muy góor muy jigéen comme ni ko sama chroniqueur yi waxee macha allah alors tey émission bi nekk émission bu spéciale thème bi nekkoon li nga xamante ni moom moo di nouvelle génération alors tàkko ñu l' émission tira sa fin ana lan ngay tàggatoo. voilà di kontaan bu baax a baax si yow Demba waaye di kontaan tam si euh, sama naataango bi Kandji Socé. Mm-hmm. <laughs> malgré plateau bi tàngoon na mais ah, <laughs> kontaan naa si yow bu baax a baax waaye di kontaan tam si téléspectateurs yi nga xamante ne rek ñoo ñu doon teewlu ah, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox nag rendez-vous euh, ba semaine prochaine incha allah donc yal nañu yàlla may euh, salaam santé ak CFA bu leew bu ñu boo xamante ne rek ah, dinañ ko mën a utiliser si li nga xamante ne moom mooy tabaski bi voilà mi ngi noonu. jaajëf ki nga xamante ni moo di tàkkoog malaada ak Fatoumata ma damaa bëgg beneen 5000 ñëw. beneen 5000 day ñëw dina ko joxe. <laughs> ma topp ci 5000. noonu la non pas 15000 yi ñëw. alors <laughs> waaw wéef ko ko. <laughs> alors Kandji Socé ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo ak téléspectateurs yi. waaw di wax euh, mbokki téléspectateur VA yi euh, di leen euh, wax ne leen am nañ mbégteel bu baax a baax a baax di leen jaajëfal ci suivre bi ñu doon suivre ci suñu émission Viajo di leen joxe dig daje ba beneen yoon di ñaan yàlla mi may jàmm yàlla yàlla nañu may jàmm yàlla muccal ñu muccal ñu ci yàqu-yàqu musal ñu ci yàqu yàqule lafal ñu ca làqu ñu fa yàq yeggul ba semaine prochaine incha allah alors ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Kandji Socé Adama maa lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam waa Kër Mbaye Fall bi nga xamante ni fa nga bàyyeekoo ku ci mel ni Seydou Ndiaye en ah, beauté dérangé di jaajëfal ñëpp waaye itam Sakko maa ngi lay jaajëfal vraiment kontaan nañu téléspectateurs yi aussi kontaan nañu ci émission bi nga xamante ni ni naa la moom moo di VA Show mu nekk équipe bi nga xamante ni moom mooy ñëw tous les mercredis ba tax na man itam maa leen di jaajëfal a baax a baax yéen fidèles téléspectateurs ñàkk leen tudd ku ci mel ni Fallou ah, ak équipe bi yëpp ndax nag naa la euh, macha allah bu liggéey bi naaysee ci ñoom la bu lépp jaadoo rek ci ñoom la ba tax na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla itam yàlla na jàmm sax ci réew mi yàlla na ñu yàlla may ñu tabaskindoo ak jàmm ak salaam waaye itam ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom lañu fi jot seetaan itam surtout xale yi léegi ñu moytu ndax nag euh, moytu moom dafa baax ci doomu aadama alors man nag maa ngi leen di dig daje incha allah ba samedi incha allah ma daal di ñëw ak équipe samedi bi fii ci ci euh, VA show ak émission bi nga xamante ni tubaar fakala ma l'enfant chéri de sa maman ma ànd seeg nga xamante moom moo di Seydou ak Beauté Dérangé alors di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje samedi incha allah